alde kal bee ko sonal parce que kal bi ko sonal fu mu ko yegg sori na fu mu ko yegg sori na mu ngi koy bëgg a tegal 16 mu la xamal nag du ko daan du ko daan non non du ko daan ci lii eh! war na ko doomu fi Ardo génnee dina ma jaaxal bu fi génnee dina ñu jaaxal de génnee dina ma jaaxal Ardo ngay jóg mais nag doon na ko benn ah, ah, man Ardo da si génn da si génn daa neen da si génn bu ci génnee dina ma jaaxal ma ñu war na ko noom moom moo koy dóor te lii bu yàggee arbitre bi day arrêté. moo koy ko victoire. Ardo Madou la Ardo. mais na tamit na moytu Ardo bi fa fete mu daanu oh. daanoogul de ba léegi ba léegi daanoogul ba léegi daanoogul mi ngi dóor. Ardo fii boo jigéen ne dina ma jaaxal. bu fi jugee dinañu jaaxal Mbañing. jugee moytul. Mbagnick Kaïré bu Ardo jàppee sa tànk si ginnaaw tamit mën na la cee daan de. Mbagnick Kaïré moo ko wër ndombo. moo ko wër ndombo mais Mbagnick dafa mel ni day noppalu waale. waaw. mais est-ce que bu ko mu arrière Ardo du daanu. dina daanu de mais wóorul la. su Mbañing arrière on xëcc Ardo est Ardo du daanu Ardo ak eh, Kayre daan na. Mbañing Kayre daan Ardo. ay Kayre daan na daan na ko Kayre. Ardo champion la nag. bëri bu neex. xoolal ma xoolal ma mag bi. xoolal ma mag ji. bëri ko ci fulla ak fayda. yéen Kayre daaw na dugg ci biir. Diène Kairé daw na dugg ci biir géew bi mais Diène Kairé bi mu dawee dugg sax jàppul rakk ji ardo la dem yëkkati. ndeysaan li lay war ni lamb fair-play la. lamb fair-play la. ndeysaan fair la. li moom amoon ci stade arène nationale. xamoon na ne mooy Manick Kairé Manick daan na ci jël bu amul benn werante. aja kaani